salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum mbokk yi nanu bàyyi bu nit génnee àdduna ah sëriñ ñi xamul dara ak dóorkat yi ak yalwaankat yi ak ñi bëgg ñu jox leen ay millions wala sëriñ yi nga xamante si nii dañuy dañuy dañuy dañuy wut promotion si dëj bi di wax naan ay dañ koo liggéey ak dañ koo nangam moo tax mu faatu nanu bàyyi loolu yàlla nee na man rek maa mën a reyee ci alxuraan yàlla moo faat bakkan ku dem yàlla la rey ku dem yàlla moo la soxla dangaa matal dem nanu bàyyi di waleen liggéey bu dee nit ki dafa am xaalis wala mu am daraja dan naan bu nit génnee àdduna dan naan dañ koo liggéey mu dee mais bu fekkee baadoole la bu tekkiwul dara ah boo xam ne nii amul xaalis loxoom jotewul ndigam dan naan dogalu yàlla la yàllaa dogal mu dem mu dee ko am xaalis ñu ne dañ koo liggéey nanu bàyyi loolu ko am xaalis ak ku pauvre rek ku ñàkk ci yam dee dee la yàlla moom mooy soxla jaamam jëlaat ko ñii dem dem na nan leen ñaanal yàlla mu xaare leen àjjana te defal leen yërmande moo gën seen détails yi ak seen wax yi ngeen di wax. salaam.